li nga waxi RTS comme non non li ñu daan gis ko en fait wala wala waaw yu yàgg yi hmm. dañuy dajale affaire yi mini ministre xaw ma lan kan ak kan ñëw taxaw ñu taal affaire yi fekke naa fu ministre de l'intérieur taxawee directeur police taxaw duwaan taxaw ñeneen ak ñeneen taxaw ñu lakk ko fii ci sim mhm. mais gis nga comme communication dafa am solo tey hmm. yu mel nii ñu koy évaluer ci ay milliards milliards ñu marine intercepté ko DIRPA def communication fu mu toll dañ ko wax di ko xam du mm-hmm. lépp ngay communiquer. du nekk ci enquête bi yëpp nit ñi dañ ko war a xam mais tey jàpp nañu 3 ton de cocaïne ci benn navire diw ak diw ak diw ñoo fa nekkoon téye nañ leen fu enquête bi toll dañu wax a def communiqué pour xamal askan bi. parce que après des dossiers dafay nekk instruction dañuy respecter les secrets de l'instruction mais après liy xew ak liy xew liy xew duñ duñ ko xam. Mm-hmm. Mm-hmm. dañ ko wax di ko xam te liñ jàpp nag dafa bari de. lii moom bari na trop en tout wax dëgg yàlla ndax li ñu doon wax naan suñu frontières yi comme rideau Maïga li ñu def nii tey bu jàlloon. Mhm. ah mën nañu mën nañu xas. Mhm. mën nañu wax ne Sénégal sécurité bi baaxul et tout surtout frontières yi. Mhm. ñu ngi leen di félicité bu baax ñu ngi ñaan itam enquête bi ñu ñu wéyal ko. ndax nag lii ah. ñooy ragal ñu sant Diop jaaree fee am lu ñu def. bu dafay xaw a compliqué. voilà ngooni démb ñu yëg ci xibaar ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay responsable Pastef nekk fële ci département de Pikine mhm. euh, bokk si Diomaye Bassirou Diomaye Faye ak yooyu dañu la teg loxo mais daa mel am na lu si bees waaw am na lu ci bees euh, mu gën a leen bàyyi ci guddi mhm. mais pour revenir juste ci li nga xew moom mooy. Mm-hmm. ñuy wax waa ex-Pastef. Mm-hmm. dañu am permanence bu nekk foofee ca Pikine Icotaf. Mm-hmm. comme wàllum parrainage yeeg yooyu da nga koy gisee ñu ci bari dañu dem ci seen euh, QG mooy seen quartier général. pour mën a toog foofu ñiy nekk ñiy ñëw yendoog yooyu. dañoo jékki-jékki nag gis ay éléments commissariat bu Pikine. ñëw foofu la ca béréb bi. Euh, tëj siège bi. jël ña fa nekkoon yóbbu leen commissariat ba guddi. dañ leen di soog a bàyyi ñu ñu ñibbi. donc descente boobu nag. nañ fekk comme ni ma la ko wax ñuy collecté mm. euh, euh, parrainage bu jëm pour seen candidat euh, Bassirou Diomaye Faye ba ñu leen interroger nag ba ci guddi gi ñu doon xaar décision bay jóge ca procureur parce que bu ñu la tegee loxo dañuy rendre compte le procureur de la république mm. moom mooy xool ndax daf la fay dénkaane moom mooy xool ndax dañu ubbi enquête moo mooy mm. xool ndax dañ lay jàllale procureur boobu moo joxee donc ndigal ñu auditionné leen bàyyi nañ leen ñu ñibbi ci guddi gi waaw toog di di collecter say parrainage ñu fekk la fa jël la yóbbu euh, voilà après euh, ñu bàyyi leen heureusement bàyyi nañ leen. mais quand même su ma dañoo ñoom dañoo ubbi QG. sans autorisation ñu wax. non non en fait peut-être mën nañu wax loolu mais QG boobu. yaa gën a fa li ma li ma boobu yàgg na fa siège Pastef boobu yàgg na fa quoi. yàgg na fa depuis war na mat. kañ moom man ay en tout cas ay 2019 man hmm. maa ngi koy fàttaliku dama fa hmm. doon romb quoi gënoon na kii nii sax mais dafa doon bari nit quoi. d'accord waaye Ousmane Sonko dafa doon ñëw sax souvent quoi. d'accord je pense que ubbi siège moom. Mhm. am nga foo jaar ba am ne papier administratif. Mhm. ba ubbi ko. Mhm. dañoo toll ci jamono boo xam ne nii. naam nag nit ñi jàpp nañ ne nekkuñ ci campagne mais ñi ngi ci pré campagne. maanaam boo demee bay collecte ji. yaa ngi def maanaam kaay parrainel sama candidat. ndax moom kat bu ñëwee. dina changer li dina def li yaa ngi ci pré campagne. naam moom demagul. Euh, militant nga. yàgg ci affaire yi. Mhm. yow yaa def pré campagne. Mhm. am nañ ci droit. comme mhm. ñeneen ñi niñ koy defee. gisoo waa parti bee ne. ñu ngi ñu ngi ñu ngi collecté ci def lan ñoom c'est-à-dire ñoom semewul la désordre. déggoo leen ñu yuuxu déggoo leen ñu tëgg ay bool déggoo dañoo toog tranquillement seen siège. di toog di xaar nit ñi. comme démb ni ñu ni ñu ni ñu demee fële. Euh, Yoff jàmmalaay. ña fa nekk lan la ñu wax. dañoo teg seen table. Mhm. ku bu ñëw pare ne dem. Mhm. ku bu ñëw jënd bracelet mhm. dem amul bruit amul rang bu métti amul dara. je pense que ñoom ni ñu organiser moo neexul état bi. ndax ñoom bu ñu sañoon. dañuy tëgg bool dañuy def leneen ak leneen ñu ne. Euh, trouble à l'ordre public trouble à ñu ñëw jàpp ñu fa nekk. mais jàppale leen bàyyi leen ndax lan amuñu raison pour jàpp leen. amuñ fenn fu ñu ko teg. seen siège mm-hmm. euh, dafa ne maanaam dafa am na ay papiers. Mm-hmm. yu valable mm-hmm. yoo xam ne leer nañu war nañ faa mën a toog di recevoir seeni militants pour ñu ñëw parrainer si mais loolu man je pas de mal franchement nag gisuma ci lenn lu ñaaw teg bi ñu leen teg loxo d'abord noo ko gisee euh, bu fekkoon dafa am lu ñu def duñ leen yóbbu auditionné leen bàyyi leen ñu ñibbi def dara yoon dafay teg loxo sa kaw daan sa kaw waaw lii ñuy andi li ñuy def nii parfois moom moo tax nit ñi di fippu. Mm-hmm. nit kenn ko topp moom sës kenn ko jaay doole. du doole boo am rek danga nga koy exercer ci nit yi. Mm-hmm. yàlla joxu la doole boobu pour nga koy won nit ki wala nga koy won ne doole bi ma am maa la ko ëpp. te mm-hmm. dama la koy jaay. ku nekk am nga permanence ñoom am nañu seen permanence soo demee seen permanence ña ngay xuloo ña ngay xeex. te seen biir la yem. ñeneen ñi am nañu seen permanence dañ ko tëj parce que amuñu ko fa ñeneen ñi dañu am seen permanence ubbi ko ñu nekk ci loo xam ne yoon moo ko maye muy collecte de parrainage. Mm. nekkul lu ñu sos ñoom yoon moo leen may. ñu mm. collecte parrainage. Mm. yoon moo leen may ñu def porte à porte dem nañ pour ñu parrainer seen leader. n'est-ce pas. tey ñu ubbi ubbiwuñu parce que foofu yàgg na nekk euh, euh, QG bu Pastef. mais QG bu Pastef bu Sonko bu Diomaye bu keneen ak keneen su ko neexee ñu toog fa collecter seen parrainage. léegi lan la ñu fa war a def. ba police mën a ñëw non seulement tëj ko ci anam boo xam ne teg ko ci yoon. parce que booy notifié nit ki tëj sax dina am foo xam da danga ko fay teg. mënoo mhm. ñëw tëj ko. Mhm. yamoo ci tëj ba. Mhm. gàddu nit ña fa nekkoon yóbbu comme ay délinquant. téye leen ba ngoon nga doog leen bàyyi ñu dem ban délit la ñu def. ah tax nit lan la ñu def mais bu ba bàyyi leen parce que njort nañ ñi defuñu moo tax mu bàyyi leen. waa léegi nag xëy na bu ñu defoon kay. ay luy ba boo xam ne Ousin. waruñoo fowee ay liberté nit. nit ki soo ko ñëw di ko jàpp man mm-hmm. nee naa la. Mm-hmm. dama d'accord ci ñu nekk ci état de droit. Mm-hmm. dama d'accord ci ñu jubal dëggal képp koo xam ne def nga luy teggi yoon. yoon na dal sa kaw. boobaa kenn wax. mais nan ngay jëlee nit. xam nga mooy jàpp nit ba pare di wut preuve moo leen doon wax démb. mënoo ñëw jël si nit yóbbu téye ba ngoon police. doo ko bàyyi mu dem ci koo xam ne deful waxul. fekkoo ko muy jaay yàmba. fekkoo ko mu nekk sur la voie publique. fekkoo ko mu def leen da ko fekk mu toog di collecter ay parrainage am. nga ñëw tëj. siège bi parce que danga am doole tëj ko. Mhm. xam nga yow tey jii amoo fitu dem fekk leen fi ñu paree ne da nga tëj. Mhm. boo ko defoon ñu jaale sa bakkan mhm. mais doo abuser ci pouvoir yi nga am pour teg ko ci kaw nit yi. mooy waral pour yàggee nit ñi di fippu. voilà mais mais comme bàyyi nañu leen rek alhamdulilah mais en tout cas de façon. jàpp bi moo warul woon am ba bàyyi bi di am. man nag des fois damay jàpp ne dañuy dañuy dañuy euh, dañuy euh, essayer seen oto yi wala. dem xool ñoo xam ne dañoo toog tranquillement ñu defuñu dara hmm. li ñuy def mooy dañoo bind pare ne non même bu dul loo sax cest defuñu lenn lu garaaw hmm. organiser wuñ tam nag ñu naan organisation xaw ma bokk ci benn organisation dañoo gaawee lool dañ cee gaawee lool hmm. nañ ci organisation nangam sàngam traître de terroriste vite fait mais ñoom bokkuñ ci loolu du yoon sax ñu lay jàpp Sénégal nag li moo fi am léegi dañ lay jàpp ba pare di wuti preuve mais heureusement wala malheureusement comme que bàyyi nañu ne la. Mm. alhamdulilah. jàpp bi moo waroon am mm. ba bàyyi bi di am. Mm. foofu laay waxee. comme jàpp bi bàyyi bi di am mais démb nag ngoone bala ñoo ñëw nga ci yi nga xamante ni moom mooy euh, euh, Khoureychi Ba bala ñoo ñëw ci mbir Khoureychi Ba ngoone. démb ñun dañu toog fii di joxe benn information man laaj d'ailleurs. mu ñeel nga xamante ni mu leen ñeel nga xamante ni bañ ko laaj. mu <laughs> mu ñeel bi nga xamante ni moom mooy Karim Wade ak caution bi ñu dem yóbbu 30 millions yi. Mm-hmm.